أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لقن لساني واحللا منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara bëgg a ñëwaat ànd ak yéen ci bind yi nu baaxoo ànd ak yéen ci téerab sëriñ bi radiallahu anhu bi mu tudde nahju qadaa'il xaaj fiima min al adabi al murid yaxtaaj suñu bindub tey day wëyal sof ci bind yi nga xam ne moo weesu rek te ñu jàngatandoo woon ko ak yéen ba yemoon ci ci xadis bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne sama xeet wi de duñ deñ di nekk ci aw yiw duñu deñ di am aw yiw duñu deñ di nekk ci jàmm li feek seeni mag ñi ngi yërëm seeni ndaw waaye seeni ndaw ñi ngi wet seeni mag wax ne nañu roy bu baax ci njubu imaam yi mooy ñi nga xam ne ñooy suñuy njiit nañu roy bu baax ci ñoom ngir ne suñu royee ci ñoom yàlla mën naa dugal ñu gindeeku yàlla mën naa dugal ñu jub ñu continuer tey ba tey mu ne falaatu jaalis bul toogaale man ka nga xam ne yakunu dana nekk ak baraa di gën a mage min ka ci yow bila daruratin ci lu amul benn lor maanaam ci lenn lu mënta ñàkk kamatara niki nga ko gise misla taallumin li ki mel ni jàng wasukuna wala dëkk aw maas wala dund wala tujaalis bul toog maahu ànd ak moom fawxal firaash ca kaw lal ba nee na bul toog ak mukk kenn koo xam ne moo la mag bul toog ak moom mukk ci kaw ci loo xam ne ci lu dul loo xam ne lu mënta ñàkk la nee na ku la mag bu fekkee ne doonut loo xam ne lu mënta ñàkk la bul toog ak moom mukk ci kaw saa bu toogee ci kaw yow na nga wàcc nga toog ci suuf kon bul toogaale ak moom ci kaw waaye nag dafa am yenn barab yoo xam ne maanaam da day doon loo xam ne lu mënta ñàkk la mooy lor daf cee juddoo ba tax na ki nga xam ne moom nga bokkal même bu fekkee ne moo la mag mënta ñàkk nga toogandoo ak moom ci kaw mu andi ci ay misaal ne li ki mel ni ngeen bokk bërëb bu ngeen di jànge te fi ngeen di jànge fépp ku ci ne ci kaw rek nga mën a toog waaye doonte ne moo la mag bu boobaa loola lor lay doon mënta ñàkk nga toogandoo ak moom ci kaw li ki mel ni da ngeen a bokk dëkkuwaay boo xam ne foofa lay teggin ya mooy ñun ñëpp ñu toogandoo ci kaw li ki mel ni ñu meuble ab saal teg ko ñëpp ñëw ci biir saal bi ñu toogandoo ci photo yi walla nga seeti nit mu mag la waaye foofa lay teggin ya bu fekkee ne seeni aada mooy toog ca kaw teggin ya mooy nga toogandoo ak ñoom ci kaw walla sax ngay añandoo ak nit walla ngeen di bokk di lekk waaye dañuy def lu mel ni ay taabul teg ci ndab la ngir ñu tiim ko di lekk bu boobaa toogandoo ak moom loola darar la maanaam lu mënta ñàkk la waaye nag su fekkee ne yii yëpp dàqu na ba nga xam ne li nga xam ne moo ci am mooy man ngaa toog ci suuf moom mu toog ci kaw bu boobaa nag dañ lay tere nga toogandoog ak ku la mag ci kaw moo tax mu ne bul toog ak moom mukk ci kaw lal lal nag bu ko waxee lépp loo xam ne moo kawe rek mën nañ koo jàppe ne ab lal la ngir ne ku la mag bu toogee ci kaw lay la di teggin su lor amut mooy yow mi nga xam ne yaa ko féete ak ndaw nga toog ci suuf su fekkee ne nag dafa doon lu mënta ñàkk ba nga toogaale ak moom ci kaw nan nga war a tooge ak moom moo tax mu ne fa xay suma jaalastuhu foofi toogaale ak moom fa bi waqaar na nga wegu na nga toog ci ak wegu jaalistu na nga toogaale ak moom sa sakinatin di boromuk dal maaxti xaar ànd aku xeebu dana saa boo xamee ne dem nga ba mënta ñàkk nga toogaale ak moom mënta ñàkk nga bokk ak moom toog ci kaw ne na na nga toog ci ak wegu di bañ di baj baji fu ne nga geesu fa di wokkutu wala yu demee noonu loolu lépp ne na soo toogaalee ak mag saa bu lor amee ba nga toogaale ak mag ci kaw ñana loolu lépp na nga ko moytandiku naka nga war a tooge kon ne na na nga toog dal ànd aku wegu waaye na nga toog dal ànd aku xeebu toroxlu ci kanamam won ko ne lii ma def kat dafa mënta ñàkk waaye yellut ci man ma ma def ko wa bi razanatin ci ak wegu wala tajlis te bul toog mulaasiqan di aji ñooxu ko loxoo ñeel ko aw inda wajhi wala nga toog fa kanamam wala tamudda te bul tàllal naxwahu jëm ci ak wàllam uqayya yow sama mbokk rijlaka sab tànk nee na na nga toog ci ak wegu waaye bul toog mukk ñooxu ko maanaam toog dugg ci biiram ba jege ko lool ba sës ko loolu dañ koy tere boo toogee ak mag na nga fexe ba bul ko ñuuxu waaye na nga toog may ko benn diggante espace boo xam ne dina dox ci seen diggante waaye bul ko ñuuxu waaye bul toog ci kanamam tamit ba xañ ko maanaam li nga xam ne mooy mooy ngelaw wala yu demee noonu loolu lépp na nga fexe ba boo toogaale ak mag na nga sàmmonte ak teggin yooyu te it bul toog ak moom mukk di jël sa tànk di ko tàllal di ko jëmale ci moom loolu lépp dafa dàqonte ak ay teggin ko nit ki war na koo sàmmonte moo tax mu ne na nga wegu bu baax soo toogaale ak moom na nga toog ak moom ci ak yeew na nga toog ci ak moom ci ak muus saa bu demee ba lor am ba mënta ñàkk nga toogaale ak moom ci kaw tamit na nga xam bu baax na ngay tooge ak moom na nga ci ànd ak ay teggin yu mat sëkk waaye bul toog di ko ñuuxu wala ngay toog di tàllal say tànk di ko jëmale wala lépp loo xam ne dafa dàqonte ak ay teggin na nga fexe ba loolee nga sàmmonte ak moom ba doo ko def moo tax mu ne wala ta mudda bul tàllal naxwahu jëm ci ak wàllam uxayya yow sama su mbokk rijlaka sab tànk ne nag in tajili saa su fekkee ne toogaale nga ak moom waxudda na nga damm an bu walif ko tarfaka sa gis ne nag même boo toogaale ak moom na nga fexe nga damm sa gis maanaam nga ngay lamsal di yoo say bët waaye bul def bul ko ne jàkk rek di ko xool fu mu tourné nga ne ko jàkk di ko xool loolu bokkut ci ay teggin mbokk yi bokkut ci ay teggin sa diggante ku la mag waaye même sa sa diggante ak sa maas du ay teggin nga xool nit rek ne ko jàkk di ko xool loolu bokkut ci ay teggin dafa dàqonte ak ay teggin kon na nga fexey ba saa bu lor amee ba ngay toog ak mag nga xam bu baax a baax ni ngay toog ak moom na nga toog ak moom ci ak wegu na nga toog ak moom ci ak dal na nga toog ak moom ci bàyyi ko xel waaye na nga toog ak moom xam ne fii ma toog ak yow de lu mënta ñàkk la waaye yellut ma toog fi ak yow mu ne yaani li mu jublu ci wax ji nga xam ne moom la wax an na min xusnil adabi naka bokk na ci rafeti teggin an laa tujaalisa nga bañ a toogaale man ka nga xam ne huwa moom akbaru dana gën a mage min ka ci yow illa li daruratin lu dul lu mënta ñàkk min taallumin lu ki mel ni jàngandoo aw maas wala dundandoo aw sukkunaaw wala dëkk wa naxwi zalika ak yu ki mel ni yooyu nee na li mu jublu ci li mu la doon wax mooy bokk na ci rafeti teggin de nga bañ a toog ak ku la mag ci lenn loo xam ne lu mënta ñàkk la bul toog ak ku la mag mukk lu dul lu mënta ñàkk lu ki mel ni ngeen di bokk di jàng lu ki mel ni ngeen bokk di dund lu ki mel ni ngeen bokk dëkk yu demee noonu nga xam ne mënta ñàkk nga toogaale ak moom booba fexeyal ba boo toogee ak moom tamit nga ànd ci ak ak dal waaye na nga ci ànd ak worma na nga ci ànd ak respect na nga ci ànd ak teggin yu mat sëkk mu ne wa naxu zalika ak yu mel ni yooyu maanaam lépp loo xam ne mel na noonu rek nga xam ne darar moo tax nga toogaale ci ak mag ci kaw wala nga bokkaale ci ak mag fi ngeen nekk fexeyel ba bu boobaa nga boole ci ak wegu lu ci mel ni ab avion tey soo ci duggoon ak kula mag loolu da ngay xam ne lii darar la mënta ñàkk ñun ñëpp ci kaw la ñuy toog ñun ñëpp dañuy jël ban toog lu ci mel ni oto soo ci duggoon tey bu ngeen toogandoo yéen ñëpp ci kaw ngeen di toog te bu boobaa dañuy xam ne lii lu mënta ñàkk la darar moo am waaye nag nañ fexey ba buñ toogee ñu boole ci ay teggi ni mat sëkk moo tax mu ne wa isa jaalastahu ndeem toogaale nga ak moom fa jaalishu na nga toog ak moom bi sakinatin ci ak dal wa waqaarin akuk wegu wa razanatin akuk wegu wala tajlis te bul toog inda wajihihi ca kanamam aw mulaasixan wala ngay ñuuxu luhu ñeel ko aw tamudda wala ngay tàllal rijlaka sab tànk nax waxu jëm ci ak wàllam nee na kon boo toogaale ak moom na nga fexey ba dal na nga fexey ba wegu na nga fexey ba sàmmonte ak teggin yi ñu war a sàmmonte waaye bul toog mukk dugg ba ci biiram bul toog mukk ñooxu ko bul tàllal sa tànk ca jëmale ko ci ak wàllam waaye boo toogee na nga lem sa tànk damm sab gis waaye na nga toroxlu ci kanamam na nga xeebu ci kanamam xamal ko ne man kat fii ma toog waruma fee na toog waaye lu mënta ñàkk moo ko waral moo tax mu ne wa gudda na nga damm tarfaka sab gis anhu walif ko wala tukasir bul baril al iltifata gestu min xeyri xaajatin ci lulut aajo fa innahu naka loolu kat muy baril ab gestu min alaamatil jahli bokk na ci màndargaam réer kon ne na su fekkee ne toog nga ak ki nga xam ne moo la mag na nga fexe ba di damm sab gis waaye bul baril ab geesu fu ne nga geesu xool fa wala di wakkutu di lem ab tànk di foq lu ne nga def ko wiñaaroog yooyu yëpp ay màndarga la yoo xam ne sàmmonte wut ak ay teggiin ci toog ak ku la mag moo tax mu ne waxaat xaala wax na allahu yàlla taala kawe na xul waxal yow yonente bi lil muminina ñeel way gëm ñi yaxudduu ñuy damm min absaarihim ci seeni gis wa ilayhi ci loolu asaara la junje bi xawlihi ca waxam ja kon suñu borom bi subhaanahu wa taala wax na yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko waxal jullit ñi ñuy damm seeni gis maanaam suñuy xool nañuy fexey seeni xool ñu ñuy lamsal waaye buñ xool rek ne jàkk nañuy xool tuuti waaye lu bëree bëri ñu koy ñu koy bàyyi kon bokkut ci ay teggin nit ki jël ay bëtam rek teg ko nit nekk ko jàkk loolu bokkut ci ay teggin kon saa boo demee ba xam ne yaa ngi toog ak mag bu mënta ñàkk na nga sàmmonte ak teggin yi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi digal fii mooy nga toog ak moom ci ak wegu waaye nga toog ak moom dal nga toog ak moom ci xeebu waaye nga toog ak moom ci wormaal ko waaye na nga fexey ba bul def lenn loo xam ne soo jugee ba dem ñu ne ah kii de ngone su yaree diku la loolu ku nekk war na koy bàyyi xel bu baax a baax kon nit ki su sàmmonteeg ay teggeen rek yooyu yëpp dina ci mucc incha allah kon ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu di balu àq tey bal àq di wax ne in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu rabbul arshil azim والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته